dañ koy xoolee ci ki nga xamante ni moom moo nekk euh, chef de l'opposition moom lañ ko mën a tuddee muy euh, Ousmane Sonko bu Pastef xool aussi Khalifa Sall dayoo bu mu am euh, ci wàllum politique ak surtout li nga xamante ni moom la jot a am ci ci ci parcours et tout c'est-à-dire ñu xool ku nekk sa poids pour jiitee noonu gisoo gisoo leen ko noonu. parce que xam nga yooyu ñuy wax noonu ay ay ay ay adjectif la gis nga jamono bi ñu nekk léegi nii il faut ñu def très attention. parce que ñoom par exemple taxaw dakaar dañuy natt seen bopp jamono bi ci taxaw dakaar mais man ci commune ba ma nekk par exemple ku nekk da ngay wax ci li nga xam ak ci yeneen commune mais ñi nekkoon taxaw dakaar leader yi fa nekkoon ku mel ni man tey taxawu dakaar mi ngi waaj jeex parce que c'était 2014 suñu législature bi jeex na suñu mandature bi jeex na du moins te tey man bu ma xoolee force yi nga xam ñoo duggoon ci biir taxawu Dakar au niveau des HLM tey en 2021 nekkatuñu fa et pourtant c'est ce pourcentage la c'est cette force là que taxaw Dakar a amené dans Yewwi Askan Wi pour wax ni ñoom fépp fu nga xam ñoom ñoo fa gagné woon loolu tam beneen modalité la ñoom ñoo am priorité ñoom ñoo am droit de préemption ñoom ñooy tànn ba pare kenn doog di tànn et où la force de taxaw Dakar aujourd'hui su mu la nee au niveau des HLM ku ci mel ñu si bari commençant par le maire li taxaw Dakar moo ko faloon nekkatu fa ñi topp ci ñoom kenn moo fa nekk ki seen topp nekkatu fa et cetera donc force yi fa nekkoon man dama gis ni tey c'est une réalité mënuñu jël force yooyu di ko taxawee Pastef c'est vrai dafa dem élection ba pare ñu jël ñoom ci euh, mode bi ñuy ta bi ñuy taxawalee élection locale parce que dafay arranger taxaw Dakar après jëlaat élection présidentielle parce que Sonko nee nañu moom moom moom moo gën a jiitu moom moo jiitu donc ñoom ñooy tànn ba pare ci élection locale mën nga bëgg Sonko président de la République mais élection locale gox goxaat la kan moo fa nekk kan moo ko fa nekkal ak lan la taxawee ci goxam ba mu nekk est-ce que ñun ñi nga xam ne ay leader lañu nga gis ni tey am na ci gox yu nga xam ni grande coalition gëm sa bopp boobu loolu lañu jël en compte am na ci gox goxaat yu nga xam ni am na fa ñu fa nekk di fa liggéey te war a mën a nekk ay maire war mën a jël avancé seen ay gox pour pourquoi au niveau national la ñu mën a tabbee loolu jël ko ci ay pourcentage yu nga xam ni fu mu nekk nii taxawatul parce que élection présidentielle boobu naka la demee woon ba loolu yëpp xew foog ñu xam ko tamit waaye man loolu duma ci focaliser wu parce que dama ni jamono bi ñu toll nii li gën a am solo mooy nekk ci li askan wi soxla mooy nekk aussi dans la démocratie et dans la liberté d'expression mais surtout nga mën a wax euh, askan woowu li ñuy posé wu mooy est-ce que lii du répétition rek ci coalition yi ñu fi doon gis c'est-à-dire euh, ñu nga xamante ni euh, seen intérêt la ñu nekk di gérer en interne la mbir mi di xewee parce que bu ñu xoolee problème bi ñu dégg yëpp askan bi moom gisu ci boppam. waaw xam nga waxuma askan wi sax gisu ci boppam mais ñun soo gisee ñu génn ci la grande coalition donte nag ñoom def nañu euh, condition yëpp pour que de façon la grande coalition gëm sa bopp munu woon def lu dul génn ci coalition boobu parce ginnaaw. Euh, bi ñu waxee ni que. Ah bon da bëgg a wax dañ leen pousser à la sortie. xam nga lu tax bu ñu nee euh, présidence bi dafay tournoon ci ñetti nit am na lu nga xam ni sax xëy na Bougane Gueye Dany def na ko fa mooy tey bu mu jógee fëgg dënnam ni li mënul nekk ba pare am ñu mu waxanteel am na ñu gis seen bopp dans leur dignité ne effectivement il a raison li mënul nekk ba mu indi fa waxtaan. kon finalement li ñu tegoon moom donte génn na am na lu mu fa bàyyi mooy les autres leaders yi nga xam ñu ngi toogoon noppi ba moom mu jóg wax. tey dinañ am possibilité d'être ci président tournante boobu loolu déjà dara la mooy démocratie ba bàyyi na ko fa nekk fa woon indi na ko fa ba pare génn parce que xam nga tax nga pare nga ni en dehors de la présidence tournante yéen initiateurs yi encore yéen yaa leen di tànn ci investiture yi ba pare loolu est-ce que démocratie la. loolu est-ce que des non non du c'est pas normal euh, dans les dans les localité parce que li fi nekk en fait base bi nga xam ne moom la ñu wax moo tax. man dama ni loolu ci boppam déjà il faut ñu xoolaat ko mooy le fait que taxaw Dakar dafa gagné ay communes parce que loo gis mooy li nga wax y a des intérêts crypto personnels du waxu gox yi. c'est-à-dire tey man dama gis ni li fi xew depuis des années depuis des années c'est les mêmes personnes c'est les mêmes partis politiques ñu bëgg jël en otage communes bëgg jël en otage euh, les populations mais bëgg xam nga dafa am nooy doxalee saa su nekk cest bu fekkee mairie. ñëwoo rek pour defaral gox ba nekk nekk askan bi ba pare nekkal gox bi pour mu jëm ci kanam am na yeneen yu nga xam ni euh, ay ay ay stratégie politique la pour nga mën a yore sa sa sa ay militants pour nga mën téye sa base politique da ngay jàpp ni téye foofu rek moo tax mais su fekkee ni pour defaral askan bi rek la mënuñu ko nattee foofu waaye beneen bi su investiture yi jeexee problème bu mënti am tamit arbitrage bi nañu def ay ñu nga xam ni bokkuñu ci biir leader politique yi même la présidence pourquoi dañu jël ku nga xam ne soxlawul dara ci li ñuy def même li nga xam ni ñoom foofu la ñu fa wu mooy 2024 kooku nekkul nekkul en candidat potentiel mu ñëw taxaw ëmb lépp ñëpp ànd ak moom parce que tamit li ñuy def pour gox yi la pour askan wi la lu tax mënul woon nekk donc lu tax ñetti nit rek ñoo am capacité parce que fii ku nekk da nga capable